jam sant yalla ñuy sant bu baax ma sha Allah ya, ne Saka numéro 2 lañu dalal hmm. tey ci live bi hmm. ñëpp waa lamb gënoon koo xam ci Abdou Kassé hmm. mu nekk la grand champion boo xam ne bëri nag ndaanaan yu mag fi nekk ci lamb ñu bari bi nga ñu Ama Balde ak mudlu, Lo jàpp nañ ko le 5 novembre le 9 ñu war a daje fee ca Banjul war a def signature contrat bu mag. Mhm. ak état de forme nga gis ci Modou Lo guddi yi ñu toll. ak état de forme yi nga gis ci xale bi di Ama Baldé. Mhm. daa ko jox combat boobu boo ci doon wax amateur lan nga wax. d'abord maa ngi maa sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sant yu waajur bu baax di ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. di jégalu bu baax la xam nga léegi wax moom dafa yombatul quoi. mais ñun dañoo bokk ci làmb ba tey dante bëreetuñu defuñu dara mais tey <clears throat> ñun ba léegi ci làmb rek la ñuy dox. wallaay ndeysaan. ñu yëgee ak buñ ñu yëgul yëpp chaque jour ci làmb rek dox yàlla xam na loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. billaahi mais ci li ma laaj naaj sawar pour tontu mooy que euh, euh, Ama Balde ak euh, Modou wax. Mm-hmm. Ama ma si waxoon laa lay waxaat rek mais nag amaa dama ko gis ak benn état boo xamante ne. Euh, daf ma doyul ci moom quoi doyu ma quoi bi ma koy mujjee gis xaw ma ndax le parce que gëj naa gis. Mm-hmm. waaw mais bi ma gis état boobu ma ko gisee woon moom vraiment état boobu moom doyu ma dara quoi. kon daal su ma la déggee mooy masse bi Ama Baldé jëloon. Mm-hmm. te nekk gudd nit ki loolu arrangé gu la la woon quoi. waaw yaram boobu moom vraiment yaramu noppalu dëgg laa gisoon ci moom quoi ñun ñu ay sportif lañ xam nañ quoi am xam ne da mm. ngay xool la nga xam quoi. Mm-hmm. yaram boobu yaram boobu mu nekk lan nga bëgg gis lan nga bëggoon yaramu Ama Baldé boobu nekkoon maas lan nga bëggoon lan nga waaw mu nekk doole rek <laughs> xam nga xam nga yaram ak doole bokkul. Mm-hmm. yaram ak doole bokkul. Mm-hmm. diis ak am doole bokkul. nit mën nga diis doo am doole. waaw moo tax état ba ma ko mujjee woon gisal moom vraiment ne woon naa. war na liggéey bu baax quoi. Hmm. waaw oui. mais loolu sama xel. dañ ne salaamaaleykum rek nga jubali ci doole. dafa hmm. am solo trop. fanam bu la si kenn nax gis nga premier galaaju mbër doole la. premier galaaj bi. bu si kenn nax doole la. Hmm, loolu moom mooy bi ci des yëpp day mottali rek. tey boo amee doole ni nga war a mel da yomb a ñaanal. Mm-hmm. Mm-hmm. da nga yomb ndoxu kese sax buñ la ko xëppoon. te xamoo fu mu jógee mun boo demee mun nga am ndam. Mm-hmm. wallaay premier galaaju mbër doole la man loolu moom mooy sama mooy sama wax man ci ci ci mbër. peut premier galaaju mbër dañuy salaamaaleykum Ama Balde Modou Lo rek. nga jubal ci état de forme bi nga mujjee a gis ci amaa Balde. ne cas bi ma gisul ci Ama Baldé xaw ma ndax dëj naam dëñut waaye man loolu doyuma mhm. bu fekkee ne dëj na nekk na lu baax bu fekkee ne dëñu doyuma mhm. nga gis barki démb Modou Lo balaa ñoo ñëw ci dynamique gu combat bi ak ku ci nekk fan nga war a jëm ak làmb jooju bi mhm. combat boo xam titre roi des arènes la barki démb nga gis Modou Lo arène nationale mu ñëw tous nga xool ko na ko jàngatee gis nga fara wax mooy lu ma la sama waa ji fifty da koy da koy wax lu bari di di wax accident lamiñ mhm. moo tax man dama ragal wax yenn wax yi quoi parce que ku nekk af ku nekk la wax dinaa la wax mais dama bëgg pour ñuy déglu ñu xam ba pare li mu wax ko bismillah gis nga Modou bo Modou yem yaa ngi dégg Boy Niang ñoo yem manam xam nga mbeur amu mbeur do am ku muy ragal mais mbeur da nga wala am koy rus parce que aduna lo rus ak lo ragal ñoo yem waaw parce que tay dañu am ñu nekk seen ginnaw yo xamni dañ leen parce que bo xol ñom li dal mbeur yu bari du leen dal do leen gis muk seen yaram ñu def si lu si bokkul xam nga tay am teranga ba pare am lepp ba pare am kilifa yombul waxin na nag quoi waxuma pour kii xam nga nit ñi da ngay wax fii ñu yëpp. am teraanga am lépp ba pare am kilifa yombul. déedéet yombul. mbër yu bëri nag mu ngi si mais ñoom ñaar laa la mën a suteel rek ñoo xamante ne tey. Mhm. gis naa ñoom lu mel noonu. Mhm. kilifa bi mooy seen entourage am entourage bu baax boo xamante ne heure bi ngay tëdd heure bi ngay jóg lii ngay lekk lii ngay naan. du dugg dara te waxu la yaa may dégg. ma lay dégg bu baax damay bëgg nga développé. merci beaucoup dama gis si si si ñoom ñaar loolu. moo tax foo leen fekk da ngay gis forme physique seen yaram. foo leen fekk da ngay fekk forme physique bi seen yaram. da nga gis loolu dinaa ci ñëw ak yow ci deuxième partie bi. waaw dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw ak yow ci deuxième partie bi. Mm-hmm. mais fi muy ñëw ak yow mooy Modou Lo mooy le roi des arènes. Mm-hmm. war a dajeeg mm-hmm. Sa Kajoor tey jii bu fekkoon na mm-hmm. yaa préparé Ama Baldé. ci côté Modou Lo. fekkoon ne yaa préparé ci lan lay gën a focus ci digganteem ak Modou bu dee wàllu doole la bu dee wàllu cardio la bu dee wàllu muscle bu am am doole bu dee préparé combat bi ak lépp loo ak ak lu làmb ci côté contact ak lépp. bu doon Sa Kajoor moo préparé Modou Lo tey Ama Baldé ci lan la koy préparé balaa ñu ñëw ci Modou waaw sama xalaat laay wax nag d'abord. parce que ama na dem contact yi ba os. parce que moom mënul mënul doole mënul ëpp doole Modou Lo boo koy wax nii nag duñ ko gëm. mën na ko gën a diis mën na ko ëpp cadre yooyu yëpp doole physique la doole si yàq lañ nekk. Mm-hmm. yàgg naa ko wax Modou Lo dooleem yaramam. Mm-hmm. Modou Lo nag euh, Ama Baldé moom. su ma doon moom physique contact bu métti laay def ci combat bi même musculation bu bëri sax jaru ko woon. diin contact ah yéeg diin contact. yéeg diin contact contact ba os contact bay sa yaram di amoo boo mandee contact da ngay ñeme bëri. Mm, mm, dootul ragal bëri. non da ngay gisoo booy talfa mi ngay gis noonu mbër moom maa ngi si doon waxtaan ak gars yi avant combat moom Mbaye Tine mm. mais dama ne leen bi dafa dafa mandi contact. motax xamna ni mbaytin mbot kat la mais ragalu sax wet gi ndax mandi bu mandi beure motax da mandi yaram be mandi beure day ñame beure lu lu ko xel mi may rek da koy def wala ndessal mbeur mom day tollu fofu motax xol premier galaju mbeur moy lu wax legi rek entraînement contact bot os jour bi day football yi basketteur bi day dem basket yi menuisier bi fofu mais mbeur mi tamit ngay dem di contact yi mais lan moo tax Ama Baldé hmm. li nekk ci moom fugu gi nekk ci moom ñeme bëre bi nekk ci moom nga ne base combat wu Ama Baldé ak Modou Lo mooy Ama Baldé dem contact ji ba os lu tax loolu. c'est que Ama Modou Lo daf ko damee ci combat bi damee bu yàgg dama yaakaar ne baawu ci xel. damee mooy lan. daf ko damee ci combat bi parce que combat bi waroon nañ ko bëre bu yàgg. Mm-hmm, mm-hmm. am ama pare woon na seen premier combat gisoon naa ama physique doon nañ gisante fii sax ah. période même màggal daaw rek ñoo ñoo nekkoon fii. Mm-hmm. mu gisee udul ama udul Morlo sax mooy loolu. parce que waxoon nañ ci ma yow ba am lu ma la si waxoon mais bi ma ko gisaatee jamono yee si ginnaaw nii physique am. nii ak ak yaramam. daa un mois quinze jours ci ginnaaw quoi. voilà mm-hmm. nee yaramam bii mu yor nii na ma baal nag quoi conseil la rek quoi xam nga wax léegi dafa yombatu. waaw mais tey jii lii ngay def en tant que grand champion. di ko bëri Ama Baldé. Sakka mhm. boo nee sa Ama boo boo gis naa tey Ama mu yor muscle boo xam ne nii yaram boo xam ne nii baaxul. Mhm. kon tey nga koo dimbale. Mhm. koy dimbale ndax tey jii làmb ak critique ñu ànd. champion benn am nga message boo ko mën a wax balaa ñoo ñëw ci Lo. waaw ama dañoo xaw a sax njuróo foofu parce que man man bi may nekk si affaire yi comme nii nii nii man dama doon xatal nit xool ma sax ne ma da ngaa jeex. Mm-hmm. dama doon xatal loolu. billahi lay taalay tey moo tax sax ngay dugg si yenn détails yu yeneen yu bëri yoo xam ni après ngay xam ne lii baaxul quoi. mais daal lu ma mën a xamal mooy mbër moom contact mbër physique. musculation daal base. base su Ama Baldé daal ci combat mooy contact. contact contact murlo bay murlo murlo Lo Modou Lo Modou Lo benn action du ko dande de bu diit du ko dande de Modou Lo liñ koy def fo muy gaaw te loolu def na ko defat mais ben action du ko dande bu dee Modou Lo te vraiment ba tay maa ngi gis physique bobu si moment li ma ko ba tay tay macha allah. maa gis physique boobu si moom te instant bi sax ñoom dañoo gën a gara parce que moom tey am na ay luur yu mu kontaagal te booy xool làmbu benn instant day nekk géejawaay am fa doole des fois mu nekk pikin am fa doole mais guddi ñu toll dafa am doole parcelle. foofu na laay jaar ak yow ci Modou Lo wax des ndax ni ma la déggee ni tey jii Sakho Dior dafa ñaax Ama Baldé. Mhm. pour li nga xam ne mooy base am ci combat bi mu gën cee privilégié wu gën cee ñëw. Mhm. ndax làmb day toll ne nii. il faut ndaanaanu làmb yi di wax il faut ñi xam làmb compétir ñu mën a wax mais sax Modou Lo tey lan mooy avantage am ak boo ko doon waajal lan nga ko indi ci digganteem ak Ama Baldé man fi ma moom daal ci combat bi moom lu mooy li ma la wax léegi rek contact rek Modou Lo Modou Lo bë bëre bu métti laay bëre moom bëre yi combat moom Modou Lo bëre ko jaaxal nga di ko waajal lan ngay waajalee Modou mais Modou man su ma moom damay sëf booy bi combat bi rek. <laughs> di baatu sëf combat lu tax sëf booy bi combat rek parce que parce que booy bi moom am na am na lu mu gëm loo xamante ne pour moom lu taxaw si kanam rek mën na ko fa jële mais ndax Modou Lo mën nga ko gis mu sëf mbër combat. Modou waa bari na lu muy def loolu nag de. diggante ba Eumeu Sène. bu njëkk ba. bari na non bari na lu muy def lool moom damay bañ a lim rek xam nga mais combat yu bari yoo xamante ni jalay saf combat bi di la jaxase public bi mm-hmm. bari na lu muy def lool quoi. Mm-hmm. mais Modou Lo ci base combat am Ama nga xam ni tey jii loolu sax du ko war ci loxoom mu nekk armam mu bi mu def nii rek. bàyyi booy beeg combat bi ci préparation beeg yëpp bàyyi ko ci arbitre bu soufflé sax man su ma doon moom nii laay def rek bàyyi la combat bi. ak yow nag foofu nag la problème bi am. Mhm. ndax mën na ko bàyyi combat bi yëpp man ndax Modou bu arbitre ciblé. dina mhm. bàyyi avancé combat bi. waaw ma mooy li ma la wax gis nga ama dafa am lu ko yàlla may loo xam ne tant que nangu looloo ko ko mën na la daan ci moom dafa am benn cinq minutes boo xamante ne moom daf ko gëm. Mm-hmm. soo ko ko bañalee mun na la daan ci seconde mais foog nga nangu ko loolu nag cinq minutes yooyu noonu noonu boo ko teniree après li ci des da ngeen koy dam yi. Hmm? Mm-hmm. mais premier cinq minutes ama moom saa yoo ko ko bañalee mun na la daan ci ay seconde mais tey jii Modou Lo ci combat boobu ndax combat bu mu a bëree poids wala combat bu mu war a bëree masse muscle la wala ko boo xam ne nii da cee war wala lan. xam nga Modou tam am na staff bu baax am na encadrement bu baax. yaa may dégg. maa lay dégg mooy woote moo tax xam mooy. <laughs> yaa gën a Modou mooy li mu la rek sawaay dafa am encadrement bu baax moom li mu war a def dañ ko koy wax te moom déggal na estafam mooy li mu la wax léegi te làmb guddi ñu toll dafa ñibbi parcelle nañ wax di dëgg rek dëgg neexul làmb ñibbi parcelle ay période la rek affaire yi des fois day ñëw géejawaay tëdd fa des fois Pikine des fois Fass pële mais guddi ñu wax dëgg yàlla làmb ji mu ngi parcelle quoi sak jor ndax Ama Balde diggante moom Modou hmm di nga digel Ama Balde arbitre mu eurtul Modou Lo ko ndax lu di nga ko digel mais ndox lu bay yonam li nga nan def di am dam moom ba war lo ko war lo ko sa ken war lo ko téré mais Ama na xam rek comment ñi doon beurel ak ak kimi beurel ni mën nañ wute ci gabare yooyu yëpp mais bokkul de so waaye dafa am saay saay làmb quoi dafa am saay saay ci géew. am na looy ragalal Ama Baldé pour mu def ko ci diggante ak Modou Lo mais loolu nangu cee wax ba léegi. non du ragal sax du ragal mais fanam su paree ba pare def li nga war def yëpp ba ñëw si géew loolu ragal amu fa sax mais am na damier. Mhm. damier boobu laa bëgg nga nga ñëw ndax di comprendre ni a comprendre. xam nga bëgguma tey tey ñoom ñaar ñëpp tey samay mbër lañ quoi man. man ñoom mooy mbër lañu. waaw mooy la mu ku ci nekk lan nga war a indi ci ndox tu bëri da nga toll ay guddi yoo xamante ni tey ñoom ñëpp dafa am lu dund ak yow mu nice moo tax man la tey même su ma doon takkaan ngeen di bëre sax man dootu dootu moo amati adversaire si làmb parce que tey. ji nga mo loo xamante ne rusna rus naa jàkkaarloo yow wax def sax wala ma lay wax loo xam ne waruma la ko wax billaahi yàlla xam na loolu moo tax dama leen ñaanal rek man mooy li ma wax rek képp mbër buy takk ngem maa ñaan yàlla egg sa carrière si jàmm yàlla suturaal la defal la taw fi ak jàmm man loolu laay ñaan. mais mais mais saka jor arbitre na Lo Ama Baldé Modou Lo Ama na Modou Lo Modou Lo na ay wala ko ci Ama Baldé def na avant loolu loolu lan moo fa mën a am foofu mais bu boobaa man xam naa Modou du arrière te loolu danger la ci moom te loolu danger la ci moom tamit. <laughs> mais loolu laa bëgg a dégg loolu laa bëgg a dégg ñëwal ci loolu. non euh, du arrière te loolu danger la moom tamit il faut mu nangul Ama cinq minutes am bu njëkk man. billahi wallahi Ama loolu dafa nekk ci moom quoi. en tant que mbër combat boobu bu am nan lay mel ci yow. non combat la buy dekki làmb genre combat yooyu tey ñoo ñoom ñoo moom la gars yi war a lijjantiwaat ci làmb parce que loolu mooy tax gars yi amaat amuru làmb mais nekk di tàngalaat di tàngalaat noonu rek eh, am mais tey ku mel ne Ama Baldé Modou loolu fu waay nekk danga koy bàyyi xel force boobu mën na jur lu ne ci làmb làmb mën na jural làmb lu ne combat bu mel Emo ikomba ichanga ikomba yo emo ikomba ichanga me ikomba hamdanga bere bere wat bere wat ben koma yo non ga hen dam len ci mar quoi mais yaa ngi xaar seen signature le neuf yaa ngi koy xaar seen signature le neuf maa ngi koy xaar si maa ngi koy xaar waaw ñun ñun faram fii lamb rek la ñuy waxtaanee kenn sëri ñun lamb rek ñu gis nga sama gaay fii yëpp ñu waxee ni lamb affaire lamb rek duñu tëdd mukk te seetaanuñu interview yeeg ku ne ay bu Siteu fi ay maam jamban Safara di féliciter bu baax nak Youssou ndoul di ko encourager bu baax di encourager tamit euh, mbeur bu ndom doon Mor Kankan ñu ngi koy encourager mom tamit amna na ci lamb làmb lool quoi mais ñu ñaanal Youssou ndoul yam lamb yalla yàlla jik ci barke non yonent loolu non la solo Saka jor mais yakarna ne hmm. duma genn génn ak yow ci modlo ba legi ndax modlo